non Sénégal dina yéex a defaru doomi xaram yi fi nekk bari man dama yaakaaroon ne doomi xaram gi Macky Sall la ak kilifa diine kese la mais ndeke doomi xaram gi daa jàll daa jàll ba ca village ya mbaamu xaram yaa nga ca village ya ne waaf toog bàyyiwuñ leen sax xel chef de village yi Macky Sall jël ay pick-up yi mu leen jox yii mooy pick yi ñu doon reyee ndaw yi parce que xam na ne pick yi doyatu ko dara enquête ngay jub mu jël pick yi jox ko yéen ñi nga xam ne yéen ay chef de village yi ne ci biir àll gi mbaamu xaram yi ngeen doon Macky Sall bu muy yéeg nangu seen oto yéen ñëpp dem bay dem mu yëkkati ab pick-up yi jox leen ko pick-up yi lañ jàppe woon ndaw yi di leen rey saa nanga mi ndaw yi ñuy rey pick-up yi ñoo leen rey yéen ñi ci yéeg ku ci yéeg yéen chef de village yi ku ci yéeg yàlla nga faatu chef de village yii ku ci yéeg ci oto yi la Macky Sall may yàlla boo daw dix mètres nga accident ak moom de ay doomi xaram ngeen yéen mbaamu xaram ngeen yéen yàq réew mi système bi dama yaakaaroon ne fu mu tolli politique bi la ak kilifa diine yi ndeke système bi dugg na ba ca village la yéen ay doomi xaraam mais fii ngeen ñuy fekk gis ngeen projet bii ba ñu ñu ci ba paa yëpp dee paa yëpp dee amoo leen benn njëriñ ci réew mi yéen ñëpp ngeen dee da ba ngeen waroon a xeex xeexoo leen ci garabu miimaa yi ngeen nekk di naan ataaya di duul ak teg ah ko ca ku la ci gën a mën a duul nga ne kii la topp naan sëriñ bi sëriñ ha sëriñ ha yé jot réew mi réew mi balaa moo defaroo xam naa dina bari ñu dee de yéen waa Pastef de xam naa ne ku ci feebar bu yeboo nga dem Guinée mbala gàmbi faju ji hôpital yi yi moom ku ci faju te nga bokk ci Pastef dinañ la pikiir nga dee ay doomi xaram la ñëpp dinañ leen rey waaw ku ci bokk nag boo feebaree soo xalak sa feebar ba Guinée gee nga faju ji mbala Mali mbala ga mbala gàmbi nga faju ji moo gën gis nga médecin yii caaxaanuñu de ay pikiir ance lañu yor ku ñu xam ne yow Pastef nga bokk bu yeboo nga xam ne maanaam projet bi moom ca àllaaxira nga koy continuer mais di àddina gii parce que ñii dañoo capable de li ngeen di xeex da ngeen xamul nu mu toll mais barki Seydina Muhammad boo la xamoon nu mu toll ah ay kon di ngeen ko teel a jeexal te ngeen déterminé mu jeex benn yoon moo leen gën a arrangé fuuf muy gudd di man nag li ma ci gën a metti ci affaire bi article yi gis nga article yi ba ñu ko bàyyiwul article yi barki Seydina Muhammad réew mi du musa du musa defaru article 27 ay article 87 article 47 yooyu yëpp ay caaxaan réew mi article yi ñoo ko yàq ak kilifa diine yi barki Seydina Muhammad article yi ngeen di dégg ak kilifa diine ñoo yàq réew mi amul benn ouvrier bu mën a taxaw ne moom mii ñu yàq réew mi ci la bokk du mécanicien ba du électricien ba du plombier ba du mason ba du carreleur ba du dawalkatu oto ba du chauffeur ak du keneen ñii ñoo ko yàq article yii ay vingt 27 ak 47 240 ak yu kenn xamul article yi ñoo baaxul ci réew mi parce que yéen man dama yaakaar ne yéen ba léegi yeewu la gis nga article yi tubaab bi article bu mu leen andi boo leen demee ci beneen article appliqué na ko foofu ne c'est normal bu la nee article vingt-sept waroo bokk ci élection boo demee ba ci article trois cent nangam nee na la foofu am nga droit bokk ci kaw lii ak lii loolu ban wax la wax goo xamante ne amul wii amul non ah yéen ngeen bëgg a sukkandiku ci loolu yàq nañ Afrique ba mu yàq yaxet ci seen article yi ñoom li ñuy wax li ñuy def fii ku fi yéeg ñaari mandat amul luubal amul kii mooy toog kii mooy da ngay able dox sa dox jeex na tak looloo fi am lan moo tax ñu bëgg leen tegal ay article yu dul jeex ngeen nekk ci mbaamu xaram yi ngeen doon yéen réew mi sott ndey réew mi sax kan sol ndey yéen ku leen gën a doomi xaram kenn amul